marhaban kuréel gu yees mi ëmb ay élus locaux mi yeewi askan wi daal di teg moom la mboolem yéen kay xëyee ni ki tey jilee Walf Fadjri quotidien nañu Barthélemy Diaz Ousmane Sonko ak seeni ay àndandoo daal nañuy samp rayel di regroupement des élus locaux du Sénégal comme niñ ko waxee woon ñoom waa yeewi askan wi daal di nañuy woon ginnaaw association des maires du Sénégal AMS samp seen kuréel gu bopp daal di koy tuddee réseau des élus locaux du Sénégal rayel ni ki ci dimanche gi dañ ko daal di xamle ginnaaw bu ñu noppee ci ab lël bu doon amal juróom-ñetti fan ñeenti fan ak fukki fan ci wérum avril la yéene kaay bi ne bii les réseaux dina taxaw temm fas yéene jàmmaarloo ko AMS mi nga xamante ay maire ya far ci mouvance présidentielle bi ñoo ci ëpp yéene kaay l'info ne léegi moom leer na ab xaajaloo daal dinay ci association des maires du Sénégal AMS ndaxte ay élus yu ñu daal fal ci tuuru Yewwi Askan Wi ni kii démb daal samp seen kuréel gu bopp dib association bi dogu fas yéene def liggéeyam bi mat sëkk ci doxalin ak suqalim politique territoriale ci AMS Vox Populi ne Ousmane Sonko ak yi àndandoom dëggal nañu seen kuréel gu ñu doon junj yéenekaay bi jàppee ko ab réel duel ñëwaat ci ay kàddu yu tukkee ci Ousmane Sonko mi xamle ni AMS bu fekkente ne jëmmi doomi aadama la tey jile boo ci génnee Thiès Rufisque Kër Massar Guédiawaye Dakar Kaolack ak Ziguinchor ab yax dong lay dese yéenekaay yi daal nañu ñëwaat itam ci pexe yu président Macky Sall di nas ngir mën a tegaat loxo ci Ndakaaru ci élection législative yu ñuy dëgmal enquête yéenekaay ne ab équation moo am ci wowule wàll ci diggante président Macky Sall ak ay alliés waral yéenekaay bi ne boole ginnaaw bu apéris yi wane i bëgg-bëgg alliés yi war nañu taxaw temb dëggal seen i bopp ngir mën a am place ci biir liste yi loolee li koy firndeel bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi moo dine waa parti socialiste ak waa AFP daal dinañuy xamle ni faaw ñu jox leen cër ci biir investiture ya bés bi la journée ñu président Macky Sall daal dina kattanal di maanaam dope ay àndandoom ngir ñu mën a tegaat loxo Ndakaaru ginnaaw bu ñu génn ay ci siège APR sàkku ci ñoom ñu àndandoo doon laas bi tuddee bi la pexe ci ndakaaru moom njiiti réew mi bëgg-bëggam lenn dong la moo di fexe ba récupéré waat ndakaaru bi ci législative yi ñuy dëgma la suñu naatangooy ne si ndaje mi doxoon ci diggantam ak responsable mouvance présidentielle yi ci ci ndakaaru daal na leen jox ay tegtal yuy tax ñu mën a ci weerum sulet ci atum 2022 ci la Soleil moom mu ngi ñëwaat ci liggéeyu njiiti réew mi jamale ko ci wàllum juntuwaay taxawaay ci dem ak dikk gi ci jaww ji du infrastructure de transport aérien ne ñu ñu ngi ci njeexital liggéeyu aéroport bu Saint-Louis ak bu Ourossogui yéenekaay bi ne test yi daar nañ koy amal ci république bu Tchèque ak benn délégation Sénégal bi fa demoon na ndar képp ko yéenekaay Le Quotidien mi ñëwaat ci quota bi ñu jëbbal Sénégal ci aju màkk bu ñuy dégmal yéenekaay bi ne néew na lool ndaxte lu toll si ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci way la ñu may Sénégal ci atum ren jilee waaye nag bu ñu moytuut coow dina ci am ndaxte ñu ci privé bi nguur ngir ñu jëbbaleen ko tay yëpp jàngeen jëf